lig maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar bu. mais namm naa la. Babacar maa la raw fuuf. maa yaa ngi am maa ngi am sant bu baax a baax alhamdulilah. Ah, man li ma lay njëkk a laaj. lan moo tax say mbir lu ci génn rek nekk événement. waaw xam nga rek événement mooy li ma man ren laa am vingt ans ci làmb Babacar. bon am na lu tuuti lu ma ci def. donc je pense que moment bi li ma ne li ma war rek mooy jàppale xale yi mais lenn moom mun naa la ko garanti ne foog naa waxoon naa la ko ci Gris Bordeaux Balla xam na yaa ngi koy fàttaliku. ñi fi jaar ñëpp interviewé nañu waxuma leen ko mais gis nga làmb gris bordeaux gris 2 rëg-rëg quench jeen kayre armée caat di nga gis arène nationale yow di nga ne est-ce que lii événement la lii man maa la ko wax xam nga dama koy wax ci télé ci télé laa la koy wax nañ dem waxoon naa la ko nag ci gris bordeaux waaw ah, waxoon nga ko ci Gris ci ci Gris Bordeaux Balla Gaye ñu gis pay per ak yu mel ni ki noonu est-ce que pay per view ko xaaraat. ñu ngi liggéey ci concept bi ñu nar a def bi may def bi dama ne moo nar a dekkal làmb gars yi gëmuñu ko tey boo gisee ñu ñëwaat yaakaar naa ne pay bi lu yokk affaire bi ci la. Tapha lu ko indi fii tey. Tapha sama frère la suma xarit la te Tapha dafa war a bëre. moo kan yàgg dara yaakaar naa di nga dégg combat am. combat kan. non bare na adversaire Tapha ñoo koy doxal actuellement nii. amel revanche am nañu ko amel revanche. Bombardier ngi mbuur. nañ bàyyi rek. Balla Gaye ngi Guédiawaye. ñoom ñëpp ñu ngi fi te xam nga mbër yi foog ñu bëre parce que mooy seen gagne-pain. jamono yi ci loolu laa nekk ma ci leneen xale yi laay liggéeyal pour ñu yeg ci kaw. kontaan ci yow. jërëjëf Babacar merci.